élection njiitu réew ba woon bu Sénégal Abdoulaye Wade di wéyal tànki ziaram ci lenn ci bërëb bi Sénégal ginnaaw këru diine yi mu ngi woon ci njaxtalaay bés bi ca jumaay Masalikul naan jàmm ji ko kilifa yi woo nag moom Abdoulaye Wade ne ko bëgg jàmm faw nga wàcco ak ak yelleef doomu aadama nguur gee ko tax a wax ak ki mu ne ñuy wàccoog loi yi ci assemblée nationale di sa après Modou Diop ci gontuk nemmeeku bu mu doon amal ci jumaawu ji naan Abdoulaye Wade yëkkati fa ay kàddu wax ci waxu jàmm ci gis-gisam ngir jàmm mën a am ci réew mi faw nguur gi jubal tey respecté loi yi réew mi tëral. bokk na ngeen bàyyi jàmm ci réew ngeen bàyyi mi. na ngeen ndax lu ne ci jàmm la aju. ndax bi nay bi nay jubal. ñun de danañu def lu ne lu nu man nee ñun de def lu ne lu nu mën ngir jàmm mën a ndax dañuy pour respecter yoon. ne pour respecter yoon. waaye gouvernement bi tam. waaye gouvernement bi tam. nay doxal dëgg. nay doxal dëgg. ma ne ko bu ngeen ne jàmm. ne bu ngeen jàmm. boole leen ci doxal dëgg. boole leen ci doxal dëgg. doxal dëgg nag. doxal dëgg nag. moo yor réew. moo yor réew. waaye du lu ma neex ma def. waaye du lu ma neex rek ma def.

bu bu ñu defaree loi. ñëpp a ko war a respecté. waaye waaye loi. dafa tëral aussi ay charte yoo xam. ni. gouvernement ci boppam. daf ca war a jaar. daf muy dem jàkka yi Masaalikul Jinaan Abdoulaye Wade demoon na fii ci Almadi ngir jàll benn